Hey. toujours dans votre acte du jour de ce 6 août suñ fa jógee dañuy seeti président mouvement gëm sa bopp Bougane les jàmbaar ginnaaw nag bi ñu wootee jub jubal jubbanti moom daal dafa ñëw daal di jubbanti ki nga le premier ministre ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko daal ci état en ruine lañ fi fekk maanaam le 2 avril fekku ñu ñaar dërëm ci keesu état yi moo tax tey jafe-jafe yi am kii di Bougane dafa jël contre-pied ki nga xamante le premier ministre daal di koy xamal le premier ministre bi mën a ci kanamu askan bi daal di yëkkati ay kàddu xam leen ne que dal lii nga xamante ni mooy réewu Sénégal Macky Sall daf leen ko bàyyil ci li nga xamante ni daal bàyyiwu fi ñaari salaamaaleykum alors que barki démb lii di FMI moo taxaw dal di xam récemment que Sénégal dafa nekk ci surfinancement ci surfinancement nag boo xamante ni dafa indi benn inflanta inflation boo xamante ni suñ ko maîtriser dina toll ci trois virgule un pour cent ba noppi ci benn projection de croissance boo xamante ni suñ ko tegee dina toll ci sept virgule un pour cent pour atum deux 2023 Sénégal me retrouve parmi les 10 pays ñi nga xamanteni ñom ñoo gëna capté wu jëmelel investissement yo xamanteni tay yu direct la fofu ci étranger en tout cas qui di président guum sa di Bougane Gueye Dany nee na di premier ministre wax ñu ndax ndaxte fen baxul ginnaw loolu dal ki di Bougane Gueye dal daal dànkaafu nako bu baax bax président mouvement gëm sa bopp les jambar jël na contre-pied premier ministre ginnaw bi nga xamanteni li muy wax ni du dara lu dul préparer yenn nit ci ay sénégalais yi nga xamanteni manam duñu du réfléchir bu baax pour que sen télé ak sen laj ak sen ñak xam fi dara tegu ko lu dul fi fekk dara waye loolu su ko du dëgg ndaxte FMI moo xamal ni que Sénégal dafa nekk ci sur financement maanaam li ñu soxla woon dafa ëpp tey li ñu yor ci koppar kon donc naka la ñu mën a nekkee fii nga xamante ni mooy benn état en ruine.